السبيل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte bu rëy rëy rëy ci teewaat fii jàkkaarloo jëm yi ñu jàkkaarloo. gayal si mën a sànni ay kàddu waxat mboolem seen àdduna rawatina peuple sénégalais bi yëpp. laataa ñuy sori ci wax ji dinañu delluwaat ñaanal ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci xeex bi nga xam ne moom la sumb ñun ñëpp. te jubluwuñu si lu dul luy defar suñu réew ba faw luy defar Afrique ba ma faral di wax nii ci sama gis-gis bu gàtt du ma fëlbu du ma boroom xam-xam waaye jàpp naa ni ñi seen bakkan rot ci anam bu mel noonu mën nañ leen boole ci ñi nga xam ne dañu ni wooye ay mooy ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci dëgg di xeex ngir dëgg ba leen ciy fekk fekk leen ci li tey rek ngi yokk ñaan yàlla leen yàlla yërëm te jéggal leen yàlla leen ci këru barsaq yu yaatu yi di masaw ñi ci gaañu bi léeg-léeg ci condition yoo xam ne yu xaw a métti la di nuyu peuple sénégalais bi wax nañ ni wax ji mën na gudd mën naa bañ a gudd ndax dama namoon gars yi waaye nañu nañu fexe ba tënk ko ndax jamono yi toll li ëpp ci wax mooy waxu suñu candidat le président Diomaye Faye na wax ji mën naa bañ a gudd parce que nous avons une élection à gagner et chaque compte de temps moo tax ñu koy essayer tënk rek ci ñaar wala ñetti anam balaa may dugg ci yooyu dinaa delluwaat remercier ñi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte yoroon seen kuréel moo xam parti la wala mouvement wala personnalité la. individuellement ñëw jàpp ci coalition Diomaye président ca boobu jamono gisantewuñu sax ak Diomaye tooguñoo ñëw moom di leen wax dal ak jàmm ndax ñun jaayuñu Sénégalais yi nit projet lañu jaayi Sénégalais yi kon su ngeen ñëwee ci projet ngeen yëw seen projet la di ci beral loxo nag suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy naw la nañu ñëpp xam ko suñu digganteel weesu na partenariat muy la doyen Habib Sy mi toog fii ak le docteur Cheikh Tidiane Dièye anam ma bëgg a mooy li jiitu bi lu bëri xew na fi damay wax ni su amoon kenn rek ko waroon mooy man mii Ousmane Sonko ndax conseil constitutionnel li mu def ñëpp xam nañ ci teguñu ci yoon conseil constitutionnel nee na sur la base de la commune renommée moom dégg nañu ne condamnation am na ra transmettre ñu ko condamnation mais moom moo dem def ay investigation nee na pour dem tirer des conséquences ci loo xam ne loi mayu ko ko parce que loi li mu wax mooy bu dee nit sax am na condamnation boo xam ne juge bi prononcé wul la déchéance civique pour nga génne ko il faut nga appliquer l'article 41 di code électoral mooy procédure bi ñu defoon te mu yóbbu ñu Ziguinchor andi ñu Dakar pour mun ko radier te loolu respecté wuñu te conseil constitutionnel li mu def da koo def sur commande li ci nekk yëpp xam nañ ko donc soo amoon kenn ku war a conseil contesté man lay doon waaye defuma ko parce que li ñuy teeloon mooy nañu fexe ba projet bi placé ay candidats te projet bi am na ko moo tax ma profitoo ci woo Sénégal yëpp ñu ànd ak tey ak dal ndax bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp tëb ne conseil constitutionnel conseil constitutionnel te ci gannaaw ga ñu xam ni am na leneen leneen lu ci laxasu yenn saa ëllëg bu bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si le conseil constitutionnel nañ ci ànd ak tey ak dal d'autant que nag am na ay rumeur yu am amaguñ ci ay preuve buñ ko amoon moom man bokk naa ci njëkk ñëw taxaw ne lii mënul dem waaye dégg ngeen ay rumeur corruption la ñu ci dégg gum ci ay début de preuve matul preuve moo tax ma ne nañu dal su conseil constitutionnel defee yoon dafa def liggéey jarul jaajëf waaye comme tàmbaloon nañu def safaan wa tamit nañu moytu di gaawantu di jiital émotion li war a demande tey conseil constitutionnel te di ko demander président Macky Sall ndax il peut encore rendre service à ce pays ndax ki mu defoon candidat te bëggatu ko ñépp xam nañ ni ay pexem weesu na foo ko mën a nat koo xam ne nekk nekkagoo président de la république waaye fexe nga ba wiiri ba gasal président kamb ba tey état bi yëpp tegu sa loxo te lépp ay malet rek a ko moo ko lal xam ngeen ni kooku ku xeeb ay pexem ñun ñi ko xam ne nekkoon ak moom xeebuñu kon nañu gën a takk suñu digg te xam ni élection bi bu jaaree yoon gëw ma ni mun nañu rek mooy de 60 pour cent incha waaye buñ jàpp ni c'est gagné d'avance moo tax dañu gën a fegal na ndaw ñi dem jëli seen carte électeur topp ci caravane yi daw baax na waaye munition bi mooy carte électeur na ñëpp jëli seen carte électeur ndaw ñeeg mag ñi la ñu yàgg def te mu jig mooy dem voter massivement mais sécuriser le vote également te loolu ndaw ñi rek ko ko voté ba pare toog aux alentours des bureaux de vote yenn fa ba ngoon ku ñëw bu ko def naka sa noonu ngeen digaale koog moom ba ñu dépouillé ba signé PV yi ba envoyé quartier général ñëpp am seen i PV loolu nañ ko daan defee nañ ko def ñu ko ëppee ren parce que élection yi enjeu bi bokkul ak benn enjeu waaye it ñu continuer am exigence ci ñi nga xam ne ñoo war a organiser élection bi moo tax may président Macky Sall que bu ñu génnee ci élection bi affaire bi jaxasoo demam lu yomb foofu mu xam ko moom xam na ay pexe ex candidat waaye su dee bëgg na un dernier service à ce pour demim deminam tane na fexe ba élection yi doon élection yu mucc ay leer nañ ci gañe ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ni lii yàlla tudd kon dama wax ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi si amee waroon contesté man lii mais yàlla may nañu président Diomaye Diallo may ñu président Habib Sy Diallo may ñu président Cheikh Tidiane Gueye Diallo kon sama jëmm amatul solo lu dul ñëw jàpp ci ñu dox ñu ne ah élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow li bëri te may dalal xelu ñëpp nii fa ñu newoon amul lu ñu ëmb ci réew mi ma gënaag xale yi ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement Coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp yëg nañu kon xamoon nañu la xew ci dëkk di ko suivre comme ñëpp ca loolu ñu doon suivre dëkk bi jaxasoo yéen ñëpp dégg ngeen ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bari yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënu loon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono ju ñu toll boo xam ne kàmb dafa am walla dafa am benn écart diggante ñun ñi nga xam ne yàlla nattoon nañu ñu jiite ko ak li ëpp suñuy militant te communication jafe woon ba mënuñoo jottali li ñu bëgg waaye ku am seetlu tuuti bi nga xam ne à partir de du mois de mars deux mille vingt trois am na lu bëri lu soppeeku ci stratégie Pastef parce que projet boo ko yoree projet de société da ngay évoluer moom bu ma koy tënk ci lu gàtt rek te di jël royuwaay ci diine gi ma gën a xam dama naan am na Makka am Madina am Hudaybiya am Fathu Makka am lu tegu ci Fathu Makka jamono jii nag ñu ngi ci mujjantelu Hudaybiya ndax xam ngeen ku day bi jamono ji màkka fitna la woon ba tax mënatul nekk ñu gàddaay dem Madina Madina métti na woon ci xeer yi xare yi am yépp ci Madina la amee ba waxtaan am keroog ci Xudaybiya yonent bi alayhi salaam takk ay jëlee moom fasam ne namm naa Madina namm na Makka dañuy aji ñëw ba tiim Makka ba di gis les premiers bâtiments ci benn gox bu ñuy wax Hudaybiya yéefar yi takk arme ne su ngeen duggee ñu faagaagal mu si signé pacte boo xam ne moo ko jural dix ans Dakar bi mu defaru ci defar ci armée defar ci société ba keroog bi mu jubloo ci Makka mi ngi woon ci jiite armée bu mat dix mille personnes te guerre amul fi mu ne nii nag guerre du am bu soobee yàlla ndax élection bii da doon guerre mu des nag élection bii ñaar yooyu ñu dese étape yooyu lañ toll léeg-léeg nga dégg ñu ne dinañu fayu dinañ dóore dinañu lii déedéet il n'y aura pas de vengeance il y aura de la justice nañ ci jàngal dafa am loolu xam ne boo ci boo ci nekkee rek mënoo def lu jàpp neew nag ni impunité totale dina am waaye ci defoon na ma lii faw ma fay du fi am bu ñu yàlla joxee réew mi mbokk yi est-ce xam ngeen li ñuy xaar li ñuy xaar xamagu leen ko de li ñuy xaar jaxasoo na rëy na bëri na te population yi toppuñu di daw ci mbedd mi elles seront très exigeantes avec nous tey ñu am bor yu ñu war a fay mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ ci cër ñi nga xam ne def nañu ay at ci kaso bi ñoom ñëpp dañ leen war a fay bor bi te naka lañ leen koy fayee mooy fexe ba gëm-gëm gi ñu amoon ci ñun bu buñ ci mës a teggi suñu tànk lu toll ni tarafataay kon waxtaan am na ay ndaw ñëw nañ ma gis waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu amoon solo waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laaj bañ ma nee il faut ñu reporter élection bi ndax yow ak diw di fa ngeen bokk ma ne sama bokk élection mënul justifier report élection sama bokk élection mënul ni Sénégal ba mu daj am na ku mu gën a mérité nekk candidat man waaye nit ak sa yéene yàlla dogalam ku ko xamul rek da sonn bontu bi présidente xam nga la wax madame yéen ñu dégg anglais loolu yàlla bind ko ci jëw kenn saa su jotee rek di ko de idi idi kon lu ñu mën def pour élection bi ñu bañ ko reporter def nañ dem naa ba ne samay avocat bu la déposé recours mooy rabanale bi tant que figé wuñu liste yi ndax damay bañ ñu jax jaar ci loolu pour mën a keroog bi ñu nee déposé nañu loi assemblée wala dañuy def commission d' enquête parlementaire ci laa woo Birame Souleye nii ne ko non seulement suñuy député dañu voté contre mais nañu attaqué devant le conseil constitutionnel. bi ñu génnee liste yi laa jokkoog doyen Habib Sy ne ko doyen la ma dégg ci rumeur mooy dañoo bëgg a reporter te fi ñu ko bëgg a jaaree xam naa dama bëgg nga wootee anciens. amis du PDS ne leen bu ñu nangu mukk jaar ci ñoom pour reporter élection yi doyen woo leen nga wax ak ñoom 24 heures plus mu wax mu jox ko man ne ma wax naa ñoom lii lañ ma wax ba keroog barki démb lu ma taaree teel a dégg ñu ne doyen Habib Sy dafa bëgg a déposer recours ci ko wane ko doyen bul déposer recours parce que bëggu mu ñu jaar foofu. peut-être ñële mun nañ ne amuñu qualité agir mais yow candidat la boo déposé ñu ne te ak kon bul déposé dem nañ ci ba yegg ci foo xam ne ñañ doon yónni ci man ñuy wax ak man dem naa ba ne leen ne leen seen kilifa ndax li ma jàppoon man ci constitution mooy suñu démissionné article 31 deuxième alinéa mooy ñëw mooy ñu ngi ci kaw suppléance te boobaa dañuy rebattre carte yi kon bu ngeen gisee may leeral yi mooy wax ju bëri la Sénégal nag moo di demee wax ji bëri la da ngay gis ku xamoon bu baax xam yaay kan mais situation taxaw mu mën a dute ci yow loolu mooy senegal nit nag boo ko wóoroo da ngay def ni Aboubacar defoon. biñ ko nee sa waa ji nee na dafa dem démb rañaani saa ba yëpp commencé duti moom dafa ne su dee moo ko wax dëgg la waaye nit booy wóolu tànk yaa koy gis ñàkk koo gis mun a jaaral nii nga ne noonu noonu kooku dafay juum li mu wax tegu ko fenn te ñu jaar ba egsi fii li wax nii am na écart bu xam suñu diggante et c'est tout normal mooy Pastef dañ koo somb pendant longtemps mu nekkoon ci position défensive ba ñun gisuloon lu dul xeex ak défendre bu ñu continué woon ci fànn boobu kon Bassirou Diomaye Faye mii tey du nekk candidat j'ai dû prendre beaucoup de décisions parce que mënu ma woon jokkoo kenn bu ma ci jumoon ci benn rek projet bi tey jeex na may sant yàlla c'était pas évident dañuy sant yàlla te jumuñu ci benn defe kon toll nañu foo xam ne il faut ñuy gis les deux faces la pièce toll nañu foo xam ne ñenn ñi élection rek lañu gisoon élection élection élection ma leen waaw dinañ dem élection bu soobee yàlla waaye dañ ñoo song métital ñu nangu ñu lu bëri si ñun lu mu mën a def ba li ñu moomoon rek dinaa ko def tey delloo si suñu parti ñi doon wax ex Pastef ex Pastef léegi nañ ne Pastef donc dina war si wuñu suñuy éligibilité ba ci sama bos man mii waaw am na ñu taxaw ba ci opposition bi ne d'ici deux mille trente neuf Sonko du nekk candidat yàlla ne samay biir noppi naa ci bu waaye tey génnewuñu des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui souffrent ñi doon wax nañu toog bu ñu gagné qu'est-ce qui vous garantit qu'est-ce qui vous dinañu gagné waaw par excellence suñu gagné xam ngeen ni ku fi njëkk toog la may njëkk def mooy liggéey bii gars yi su mboon mu yeggale ko kon maag Basirou mii 10 ans la jël parti bi ñu seeyal ko projet bi jeex loolu yëpp parce que on voulait faire un fétichisme des élections j'ai dit non dinañu dem ci élection bi soobee peut-être ñu doon wax loolu xamuñu man de prison bi ma ne woon suite lañ ma ko jox suite chambre salon double climatiseur télévision yi ñëw gis nañu maam sama gaddim këru 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di pédale waaye est que xam ngeen ni président Diomaye bi pendant 11 ans 11 mois 9 mètres carrés de woon ñu boole ko yeneen ñaari nit xam ngeen condition yi mu nekkee woon jooyu ko fenn mais est-ce que est-ce que xam nga ni li ëpp ci suñuy xale yi ñu ngi woon ci condition yoo xam ne kenn kuñ fi tegoon ci condition yi boo matul du génn ci prison suñu responsabilité en tant que autorité morale mooy suñu amoon prof ndoll génne ñooñu te yàqul dara ci li ñuy liggéey nañ ko def moo tax nit boo ànd ak moom léeg-léeg da nga koy wóolu doylu ko buy def xamoo ko ba xam rek loi d'amnistie bi coow bu ne dégg nañ ko ci muy deuxième poñ boo xam ne discuté nañ ci dañu yow wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def noonu yëpp nit ñi ñibbi seen kër ah ñu dee rek ñoom loi d'amnistie lañu bëgg mais suñ defee loi d'amnistie ça nous profite waaye instruction bi ma jox suñuy député mooy bu ñu àndee loi d'amnistie bi interpellé leen ministre de la justice bu dee léeg-léeg li bokk na ci voté non bu dee léeg-léeg li bokk ci voté oui keroog bi ngeen dajee ci suba balaa ngeen dig Birame Souleye message boobu la délivré suñuy député pourtant dégg naa ci lu nekk. ñëw nañu réponse bi leerul voté nañu non teewul waa ba jàll moo ñu andi fii ñu nekk nii tey jàkkaarloo Sénégalais di wax ak yéen kon dafa am loo xam ne dox na ci stratégie te ñu bëri xamuñu ko te merew ma ci kenn ndax fa ñu bàyyi woon pas parti bi ba ñuy jàpp peut-être ñoom foofu la ñu ba léegi fekk ci gis-gis ak yeneen dafa évolué. ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci s'est changé dañu ne woon kenn du teg pistolet suñu bopp di ñu dialogue loo booba jamono pistolet la woon jamono jii nag bazooka la waaw naka la ñuy demee jamono parce que ñun ku ñu xam ci politique bi ñu commencé ba léegi constance nañu xam gis ñu lu fees suñu bët moo tax nag bu ma leeralee yooyu yëpp. di wax nii te li ma wax nii yëpp nag saa suñu ñëwaat ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan andil leen ma sama candidat ñu andil ma Bassirou dinañu toog trois heures de temps quatre de temps je lui fais un lu ko mës def te waxuma ko moo ko waxee ba noppi mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy di te léegi nag weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla desal ñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bëri nañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw fil fil bu ko koy xajul fii de waaye dinañ ci yegg ñu war a dëgmal nag lu am solo muy élection bi mbokk yi élection bii dañ koy gagné incha allah. bis ni ki tey bu ñu jógee fii discours amatul futtiku ëllëg bu soobee yàlla daal di commencé campagne may lancé appel nag Sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye da ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si. di leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax mënoo def lu Sénégal waxuma laa léegi ñu dese la 7 jours te génnaguñu Dakar militants yi xamante nañu léeg-léeg nit ñi def ko affaire sama koñ sama dëkk déedéet ñun gagné lañu bëgg d'abord kon bu dee ay candidats ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen dëkk ñëw toog fii. mënoon nañ ne man sama candidat boobu la maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee dina doon campagne bu méttee méttee métti caravane la ñu a def dañuy traversé rek waaye luñ ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp di daan am ci ñu ci campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi pourquoi def ñu ni mer naa gedd na di tax ñëw ñu sama dëkk di tax wàcc nuyu kilifa gi suñu amoon sa sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu tee ñu gën a takk nit yi parce que avenir u Sénégal la affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on se trompe de combat Macky Sall keroog bi mu ne man doot nekkatuma candidat dañu pare moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall Amadou bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox Amadou wallaahi yéen xamu leen Amadou sénégal yi question bi ñu waroon posé wu rek mooy simple fonctionnaire nu mu mën a yor alal gi yépp loolu rek jar na bañ a votel ko maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñu ne amuñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliard Amadou Baye jóge est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu kon loolu rek doy na ñu ne kii man lu mun a nekk président réew savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne naa ñi naan dëkk sàngam la jógee du Sénégalais déedéet Sénégalais la fii la juddoo jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe tout Sénégalais la gënuma koo nekk Sénégalais tey ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ñun ay panafricains lañu ay sénégalais ngi dund feneen ñenn ngi dund fii. ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégal la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn bu ñu stigmatiser kenn loolu baaxul suñuy natt dañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est bëgg na réew mi est-ce am na compétence yi leen nag première question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaar yu waroon génn waaye ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis-gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor na meñam di wax nee na ñu ngi lay attaqué bukki nag bu yobee waxamaana Amadou Ba mënuñoo yàpp de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu warul jël ma dafa tegal ci suuf jiite na direction générale des impôts ma yor syndicat yàgg naa laal lu warul laal man vérifié naa entreprise bi ko ay milliards mu laal ko ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko ko te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ko jox réew mi danaa may ne ñu ne compétence compétence la expérience expérience su la ndax ndaw alalu réew mi kon may lancé aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ngeen li ñuy wër di dem ci même rangeen bi rek la ñuy dem ci kilifa diine yi waaw réew mi mu ngi en danger dañ ñoo rax wax ñoo leen rax ñun ñi newoon ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mu mel ni xal bu nekk seen loxo ñu gi sànni ñu ci biti ak terroriste ñu ko génne nii ana ñoo ñu rax kii gëmul tarixa kii gëmul wax waxatu ci yooyu la man tey moom la ñu jël pour koo def ci Diomaye manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme dafa nga toogi yooyu ñuy wax ay waxu tampale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communauté bi nga xam ne ñaari président yi génne woon na du le fekk ñu wax nañu def li nañu def nii mais le fait que ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accord uñu sénégalais yëpp sénégal yooyu jógoon contre Abdou Diouf ci jamonoom jógoon contre Abdoulaye ci jamonoom nga ne ñooñu dafa am ne seen gannaaw di leen financé ay terrorisme ak yooyu nañu respecté Sénégalais yi j'ai beaucoup de respect pour ces anciens présidents mais waruñu leen il faut ñu respecter peuple sénégalais bi dafa mature egg fi mu war a egg xam li mu war a xam di choisir ses combats la kon nañu concentré wu ci l'essentiel le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp ni lépp alal moo koy def may interpeller encore une fois président parce que responsabilité am la ndax schéma bi ñu teg ngir bëgg a def li ñu def ñun xam nañu schéma bi ñu teg pour ngoonu élection bi ñu gaawante ne gagné nañu à tel score gars yi génn FDS yi ñu ne. parce que élection bu ñu xasee ba ñuy joxe nañu score rek ñun ñëpp xam nañu c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions te responsabilité la moom mooy président de la république kon désormais nous avons un seul adversaire ñëpp xam nañ su élection yi jaaree yoon mënul am 15 pour cent ci réew mi mënu ko am waaye fi mu jaar ba egsi fii tout sa trajectoire loolu du voyer naxante jënd fii jënd fële foofu la yaakaar ni mun na koo jaar ba dégg monsieur le président de moo tax il va falloir qu'on fasse un large front un barrage contre ce qui se trame élection bi incha allah dañ koy gagné di dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection est le premier jour daanee nag damay bañ a def sama candidat bi damaa bëri wax waaye dama leen nangu version français bi sax moo ko def damay bàyyi président wax su may daanelee mooy ci candidat bi xam ngeen affaire politique dafa doy waar ñun ñëpp ay nit lañ kese léeg-léeg kenn ku ne ci ñun dina am ay seytaane muy sa xalaat ay nit yu ñëw di wax ay air primaire la ñu dong la nga nekk situation yoo xam ne waaye est-ce que wóor na ma joxe lii nguur kenn du ko dénkaane nanga bi ñi di ñëw di wax ba defee soo wetee ne a'uuzu billaahi mina shaytaani parce que bu ko moy rek nga gis sa bopp li ma def man mënoon na tombe ci biirum Souleye Diop mi wala ci Abbas Fall mi wala ci Maimouna Dieye wala ci Cheikh Tidiane Dieye wala ci keneen ak keneen doyen Habib Sy mii dafa ñëw seet si ma la seule bu mu jot ñëw ma seedeel ko ni c'est un homme de mission à son parce que dafa sa ma seeti ñu waxtaan ma ne ko bu dee yàlla nattuñu natt nañu amuñu candidat passif mën na doon nga doon candidat bi mais ce sera pour ceci et ceci et mu ne ma bu soobee yàlla noonu laa koy def te boobu ba léegi saa su ma bëggee dara ci moom su ma ko nee léegi léegi moom mag foofu mun na nekk sama baay waaye lu ma ko wax mu defee ko moom c'est un homme de mission ma seedee ko ko noonee laa koy seedee docteur Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne candidat la moom it démb rek maa koy seetaan ci temps d'antenne gannaaw bi ma seetaanee bàyyi bi ak tagal bi voilà dafa mu dem dañ ngeen di fay jiital son premier temps d'antenne dafa régler problème mu temps d'antenne nu Diomaye Faye nii kon di leen félicité bu baax ci loolu waaye di wax ni mënoon na tombe ci kenn ku ne ay da booj nii mënoon na nekk candidat grâce su ko neexoon mu jëli fiche keneen ak keneen mais tombé na ci Diomaye dama ko tànn nag wax naa ne ko ci vidéo dama koy tànn yàgg na te xam naa li tax ma tànn ko ma gëm ni Sonko mooy Diomaye du waxantu du waxantu waaye Diomaye mooy Sonko du waxantu bi ñu mujjee waxtaan avant dernière fois bi parce que démb ñoo ne ba ndogoonoo ci la colonel bi ñëw ne ñu da ngeen ma ne ko saa yi demal defari sa bagage da nga defar sa sikkim bi <laughs> alors mais bi ñuy mujjee waxtaan dañu toog waxtaan lu yàgg ñiy waxtaan ci li nga xam ne mi ngi am te nit ñi yaakaar ni mun na andi féewaloo suñu diggante mu wax ma lu am solo mu ne ma président wallaahi politique su waroon sama diggante ak ma arrêté parce que damaa yëkkati doom tuddee la ko te damaa bëgg doom boobu dama bëgg doom boobu jox comme exemple kon suñu politique naroon boole dama bàyyi politique bi dama xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ngi ne Diomaye comme bëriwul wax bi man nag Diomaye su ñëwee ñii Sonko sax moo tane woon ci ñoom war nga tiital na gaara waaye ma ma bëgg a seede ni Diomaye gën a si ñoom ndax sama reetaan bu guddi gii li mu nekk ci gannaaw ñi ma xam-xam nañ Diomaye dañuy waxtaan benn jour maag moom ak Birame Souleye sama kër boobu affaire yi tar na métti na ma ne ñii Ibrahima bu ñu jëlee affaire bi damay dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la sorcière amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma ne leen andi leen ma joomaay mu ñëw ñu waxtaan waxtaan quatre heures de temps ma koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaaral ma seetlu woon ma ko joomaay ñii il faut lii dafa yomb quoi ñii il faut ñu def nii mu ne ma mukk ci àdduna président mukk ci àdduna bu ñu def erreur yi ñu loolu muy lu ma bëgg a yokk ci seede di sama digganteeg moom waaye di wax askan wi nii tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd lu yàgg ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw di wax rek li muy teel visite mu ne ma président man dama am kersa ci nit du ñëw di wax ma ne ko du ma la déglu waaye ku mun a dugg sama nopp bi ba wëlbati sama xel gisagu ko loolu ci mbindam la bi may daanelee nag gannaaw bu ma dénkaatee Sénégalais yi Diomaye Diomaye jëmmam amul solo sama bos amul solo donte dañ naan élection présidentielle waaye projet la ñu wax ak Sénégalais yi am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ci bëgg a wax ji bëri moom dina ci leeral waaye ci doog a daaneel ba ca njëkk mooy nee ko président Diomaye mbirum vice président heureusement bu ñu nee sax lu ñu war a fal la donc du pour élection bi. dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix la ñu am boo gisee xalaat yooyu am mooy président présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fi sonn na bu sonn yow ñu ne kon ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mën a rééquilibrer les pouvoirs les attributions te lool mun nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président. ndax koo jëlee réew mu mel nii France ba 2007 modèle bi lañu amoon à partir de 2007 dañu def seen réforme mais c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation alors que dañu resté ci c'est le déterminant du gouvernement qui moo tax soo déggee ay réformes coow yu bëri foofu premier ministre bi mooy dem au charbon su paree bu yóbbu mu tàgg bi kon ñaar mun na soit ñu am poste vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que doo boole ñaar ñoom fal jox leen ñu yem ay pouvoir bis bu ñu déggoowul njaaxum am moo tax États-Unis vice-président bi daanaka il est là pour la suppléance au et selon la nature de ses relations avec le président mun na ko yokkal wala mu wàññil ko mais koo xam ne dafa am légitimité électorale mu tolloog président bi nga tolloo leen pouvoir mun na am problème walla nga am un premier ministre qui ñu wàññi ci pouvoir président jox ko moom pour rééquilibrer conseil de l'exécutif bu boobaa bu contentieux amee président bi arbitré choix yooyu la ñuy def gëm naa ne nag ci mandat bi probablement ak président Diomaye damay décider mais peut-être schéma boobu moo gën a plausible ñaareel bi bëgg a mooy mbirum koppar question franc CFA ce que je veux dire sur la question du franc CFA parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand en détention, les conditions d'entrée et de sortie des sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre Solutions que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie. et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que

qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc un marché qui a potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas avoir ça que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monde. Donc, savez bien qu'un détenu a des, le programme a à, à, naviguer une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai travailler sur la base ressentie de et essayer de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est des précisions importantes parce que des gens en manque de programme et qui ne peuvent rien pour inquiéter le monde entier d'ailleurs, parce qu'il ne s'adresse pas au peuple sénégalais. Et je tenais à faire ces petites précisions. Je m'excuse d'avoir été assez long. Euh, je ne vais pas faire la version française, je laisse à, à notre candidat, le président Bassirou Diomaye Faye, le soin de clôturer cette conférence de presse. Je vous remercie.